ci yéen kaay dañ ci ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye ngeen jëf maase ba noppi sab coono gën a yokk loolee mooy bëgg a dal Ousmane Sonko ndax moom jiital parti Pastef yi dampom yi la ñuy ŋawte ŋawtee ak di ko jaaba jonge ci jamono suur suwaan ñu ngóor système di Ousmane Sonko li ñu koy tuumal bu ko yoon dëggalee tamadu koppi buum ubbil yéen kaay bi waxi yoon la wax te loolee déli boo xam ne dañu koo criminalisé ci réew mi nit ku ñu koy toppee juge bi mën na laa jël dugal la kaso xëy di waxtaanal ba ñu xamal ko ne ñi ñuy toppee wàllu viol bu ñu leen mandat dépôt mën nañoo yàgg ca kaso ba boole cekkit waxi liberté provisoire wala waxi contrôle judiciaire moom bu boobaa dañu koy waat l'observateur xamal nañu ne ñooñu Ousmane Sonko yi di waa Pastef waat nañu wàcc ne li ñuy waxal Ousmane Sonko ab complot la boo xam ne waa ji di Yakham Mbaye moo nekk ca bopp ba isuite beauté di salon de massage bi Adji Sarr doon dampe Ousmane Sonko ndaw si ko moom l'observateur jàppal mu di coiffure ak di def ay soins de beauté ca la yam ñu yam ci xët mu njëkku Les fekk fa xibaar bu ñeel ñooñu Ousmane Sonko yi ñu tegoon loxo ci manifester yi keroog altine journal bi nee nañu seenub garde à vue jeex na tey jii ci lañ leen war defeere liñ leen di toppee moo di tuumay dajaloo te amuñu ci ndigal turbale ordre public bi yàqaalalu jàmbur ak yàqaalal joo xam ne ñépp ko bokk yéenekaay bi nañu ba ñu leen tëyee di leen enquête yee ñu tegoon loxo ca manifester bu ñu moytuwul instruction la ñu jëm ñu demaat ci l'observateur gis fa xibaar bu jëm ci waa ji di Mohamed Ndoye di manifestekat bi ñu ne moo doon wër di taal watay jàmbur yi journal bi nee nañu ab chauffeur la bu dëkk Sacré-Cœur ñeent fukki la am am na it ku jege lool ab dossier ku leen wax ne moom Mohamed Ndoye bi ñu ko jàppee ak léegi jooy ak di réccu jëfam ja loolee la nekkee ci loxoy alkaat yi ku ko gis baa nga ko muy wax li ngay laaj moo di ndax la mu doon def moo ko tayoon tey jii Sud Quotidien nee nañu ci la ñu fas yéene teg jéego bu njëkk ca assemblée nationale ngir ñori mbalaanum kiir layu honorable député Ousmane ko lii quotidien nañu avocat yu Ousmane yi bind nañu ab leetar président assemblée nationale di Moustapha Niass di ko ca xamal ñeenti mbir yu ñu ne bëgg nañu mu leer laata ñuy ñori Ousmane Sonko la tribune xamal ñu ne borom parti Pastef di Ousmane Sonko narota wéet ci xeex bi ndax mu di waa yaanamaar waa FRAPP France Dégage ak waa force démocratique et sociale booloo nañu tàkkoo taxaw temm ci tubayul Ousmane Sonko journal Le Quotidien nañu du ñoom rek am nañu fare ci société civile gi ak it ay parti politique yu nekk ci réew mi ñoom it nee nañu dañuy jàppale Ousmane Sonko ba tax ñu taxaw doon ab cordon sécuritaire am journal Le Quotidien nañu li jaaxal moo di organisation féminine di kuréel yi xeexal jigéen yi ci réew mi nga xam a xew ci réew mi buñ ni ubbil soleil national journal bi xamal nañu ne campagne bi jëm ci ñàkk wi ngir ñu aaru ci coronavirus bi dinañu ko tàmbali ci réew mi gën koo yàgg bu weer wii di dee maanaam fin février njiitu réew mi Macky moo ko santaane démb ca ndajam conseil des ministres Vox Populi ne ko ba ministre de la santé ministre des finances ak yeneen ministres yi nga xam ne yëf yi soxal na leen ñu jël lépp lu di matuwaay ba mën a ñàkk nit ñi contre covid 19 gi Vox dolli ñu ci ne Macky Sall comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS Sengam Opalia Accent savon de Marseille créole ñoo doon ñu koy gërëm bu baax moom Mouhamed Ndiaye dañu jàngal ci yenekaay yi mbokk foofu leen yam ak ci xibaar yi ne suñu defu pàttali ci li ci gënoon a fës mbirum Ousmane di tàmbali tey liggéey bi jëm ci la justice sàkku njiitu Pastef ñu koy jiiñ mbirum si foofu ci assemblée nationale waaye karange gi taxaw nañu temb jëli matuwaay ndaje boobu waral ba waa ambassade bu France di ragal yi ñuy wax doomi France